kakule wakatindira ukakule Thank you. Pako, ako. Pakokozi bila, pakokozi bila ako eh. Pakokozi bila. Nasaan na? Nasaan na? baba na def diggante Seexaaxe kodi wo mosu kamal bi kamal bi ajalas ah waaw Thank you.

Amoy amoy ngas ine ko bahas refa in Amoy amoy ngas Tiga hati hasil tena sukne Ale meke to Ale meke to wondo ko eh? Ada sare eh, Yala yala yala yala ke asal asal ba mentole Ana mbale ne ga asal ba mentole eh, Wasu ba wasu Usu ya ya wasu aja kapten makan lagi hongo ga kapten Job kapten Sajo kapten ya kapten Job mama ngecen ga anaga dafa mo get aja kapten Babakar Abdou Aziz euh, Sadio Khongo capitaine Makeoya ya ah, yalla happenray capitaine Makea ah. Wadu Falina ah. yeah <laughs> capitaine Wadda dano makwe Kode wengari. de la autopista. Rayane ak Rayane ak ak Rayane ak ak Rayane ak ak Rayane ak ak Ray oh, ma bari ak Rayane ak ak Rayane ak Rayane ak Rayane ak Rayane bilaay bilaay walaay jaam rek. waaw mbooli mbooli ah. ndam rek sa yaram rek. amul arrêt. daa mel daa mel affaire bi jeex na quoi dugg nañ zone. waaw saa yi moom daal jàmm quoi. waaw di raam ndànk. waaw dina am affaire góor yàlla la quoi. dëggantaan dëggantaan waaw mafia bi di leen di ñaanal jàmm ah. dëgg affaire góor yàlla yaram. bilaay di ñaanal tamit ñoom tamit ñu def si boosaale. non day am day am day am waaw si kanam rek gars yi dañuy ñëw incha allah dañuy ñëw. ok dañuy gën a jékkalaat rek. Abdoulaye Paco Osuzo Mak. nante wasan basi si Pax naa de. bata jonin bata jonin. Boy de ta ni de ta de. Dilla ide mai lo ba. Bodin bodin da kan wa gore. Ke kan kon de. Bita na bona. Bita na bona la ka ka.

Mirang igaraw gusto m i n Namiranim sukuha di niya kay Mirel d e m o m sa babo. Pwede ba?